ñu raam ndànk ñu raam ndànk dem fële ca pale ba sukk jébbalu ci kanam Macky Sall waaw parce que nag ñoom fu seeni intérêt taxawee fu seen intérêt taxawee ma fu seen intérêt taxawee ñu dem sukk jébbalu feneen dañ daan demoon dañoo demoon sukk jébbalu Tiwaawan loolooy dëkk bi ñu dee ba seen intérêt taxaw ñu dem sukk jébbalu tuubaa ñu dem sukk jébbalu ci Macky Sall loolooy dëgg mani mani mani dañoo ba seen intérêt nekkee ci ànd ak Moustarchidine waa PUR daal avant PUR ñu daal leen jàppale maanaam Tiwaawan lañ doon waatee loolooy dëgg Idrissa Seck Tiwaawan la daan waatee bi mu demee ba intérêt mu jàpp ne dafa nekk ca Touba mu dem jébbalu ji tuubaa ba mu demee ba jàpp ne intérêt am la ko yor mu dem jébbalu ca Macky Sall loolooy dëgg